sans limite TV votre site d'information mbokk yi asalaamaaleykum nuyu ne leen bu baax ziar amaat mbégte lool àndaat ak yéen euh, tey jilee ñuy waxtaane nag li nga xam ne moom mooy tolluwaay réew mi jafe-jafe yi nga xam ne itam Euh, nit ñi ñu ngi koy dundu depuis lors arrestation ki nga xam ne moom mooy euh, euh, ñenn ci leaderu Pastef yi ak ñi nga xam ne itam dañoo bokk ci ku jóg politique gi rawat ki nga xam ne moom mooy Cheikh Omar Diagne ñu ngi ñuy fàttali léegi ni ñuy defee mission nii am na benn xale bu ñu rey foofee ca Bignona loolu nag la ñuy waxtaanee tey jile ak sang bi kilifa ki ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waa ñu ngi lay fay. Mhm. di nuyu mboolem téléspectateur yi safoo di seetaan sans limite. di ko jaare ci xarale yu uute yi ci réew mi ak bitim réew yëpp fas yéene indi jotaay boo xam ne jotaayu xam-xam la waaye jotaayu leeral li xew ci réew mi la. Mhm. te ñu bëri bëgg koo lëndëmal te yàlla leeral ko ñu ngi leen di nuyu bismillah. bismillah alors lan moo lëndëm ci dëkk bi lu ñu war a leeral. waaw li lëndëm ci dëkk bi ñu war koo leeral bari na. Mhm. lu mel ni yenn attestation yi jàpp nit ñi di yóbbu. Mhm. lu mel ni rey gu bari gi ci réew mi. lu mel ni fagagal yenn leader ci politique lu mel ni aussi tamit salfaañi àq ak yelleefu doomu aadama yi nekk ci réew mi lu mel ni aussi tamit maanaam lan moo ci taxawaayu kilifa moo xam bu diine bi la moo xam bu aada bi la moo xam bu cosaan bi la moo xam aussi tamit jàngu bi la mooy suñu bokk église yi ku ci nekk am nga róor boo ci war a taxaw yooyu yëpp lañ bëgg a ci waxtaanee ko pour ñi nga xam ni Sénégal ñor na leen ñu jug maanaam taxaw ne jàkk seeni bët ak nguur gi nga xam ni deful lu dul yàq salfaañi àq ak yelleefu doomu aadama ci réew mi. d'accord li ñu koy tàmbalee nag moom mooy euh, bile rapport ñeel Ousmane Sonko ak euh, Mame ña Niang je que bu demee ba réew mi bu demee ba toll fii euh, rapport boobu moom moo tax ban taxawaay la ci kilifa gi am. waaw taxawaay biñ ci am bi ci jiitu d'abord mhm. mooy patriotisme lañ. bu ñu ne patriote nag ñu bari léegi dañu jàpp ne boo ne sax maanaam da nga war a bokk ci parti Pastef mhm. patriote du loolu mooy ki bëgg sa réew comme nga jàkkaarloo nit ki rek ne ko yow murit nga mhm. mm, donte ab tijaan nga sax da ngaa jiitu ci murit parce que mooy ki nam ma soobu jëm ci suñu borom mhm. kon patriote aussi bu ñu ne la patriote nga d'abord dafa nekk dafa dafa dafa jekk nga nekk Pastef waaye aussi tamit mbooleem koo xam ne yaa ci réew mi rek patriote nga biñ ci war am nag euh, bi ci jiitu ci saytu ak taxaw seetlu yàlla foo wax ci alxuraan ne ñaari kuréel bu ñuy xeex ñaari kuréel yooyu bokk ci ummatul islaamiya ñaari kuréel yooyu xoolal fa ca dëgg nekkee ngeen ànd ak ñooñu waaye xool leen ka ñuy néewal doole te nar a jël ak ak fam ak tooñ ko ngeen faral ko te bu kenn tax man rek ma tax mm-hmm. benn ngi noonu ñaareel bi aussi tamit ñu yàgg dégg benn baat mooy xulil xaq walaw kaana murran mooy dëgg jullit na koy wax donte dañ koy rey beneen bi ci des aussi tamit ñu gis na yonent bi mooy suñu référence sallallahu alayhi wa sallam euh, li Ousmane Sonko di jànkuwanteeg mu jànkuwante ko ak màkk mais lu mu ko jànkuwanteeg jànkuwanteeg moom yonent bi kenn ëpp ko woon doole mais libéré wul boppam dafa am ñu ko libéré mooy peuple màkk bi ak Médina ak ñeneen ñoo booloo seeni doole libéré ko libération boobu nag dafa am ci kum jaaree wala dafa am ci ñum jaare mooy lan mooy Ousmane Sonko moom leader la mënul libérer boppam mënul xeexal boppam mënul mënul defal lu bari boppam mais dafa taxaw taxawaay boobee yonentu bi ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi bi mu oote ñëw ñëpp xam nañ ne bu ne woon xaala yàlla nekkoon bu ne woon yàlla defal ma nangam dama defal ko mais dafa ànd ak patience toog déglu di ñaan yàlla ne ko ñaari Omar yi de dama lay ñaan kenn tuub ci dugg ci diine l'islam Omar ibnul Xataab tuub dugg ci dina lislaam bi mu duggee ci dina lislaam fekk jullit yi di julli di làqatu dama lay indil marche ak xeex yi ñuy ñuy def dañu dóor ak dañu sànni ay lacrymogène di rey di rey di rey ay sénégalais ne yonent bi libère maanaam loolu daf ko amee ci maanaam bañ nooteel ba am li mu bëgg Seydina Omar bi mu ñëwee fekk ñuy julli daf ne tell ci bunt bi gis ñuy julli mu ne damaa tuub si ñu nangul ko tuubam wax ko sartay jullit yi mu nangu ko ñu dem sanguloo ji ko farata jàppuloo ko dugal ko ci diine lislaam wax la ko baatu seede yi mu nangu bi julli jotee ñu julli mu ne ñu làqatu mu gis ñeen ñu ngi ci seen këram yi laata onsa wama nata salisatan uxra alakum zakar wala unza comme ni ko alquran waxee ñoom ñooñu nekk ci seen ci seen xërëm yeeg yooyu nangoo génn te ñoom nekkuñ ci lu logique mm-hmm. mu ne ñun ñoo nekk ci ci dëgg yonent bi ne ko waaw mu ne ko naka la ñuy nekkee ci dëgg di làqatu ku nekk ci dëgg warul làqatu pour man ñun ba may nekk fee ñun ñoo nekkoon ci dëgg mais comme yow nee ñun ñoo nekk ci dëgg bu fekkee ñoo nekk ci dëgg buñ génnee première dana métti mais yàlla dana ànd ak ñun lu métti métti bu fekkee ñun ñoo nekk ci dëgg nag laa wax yonentu yàlla Muhammad fekk si Omar ci lim wax ñu ànd génn foofu la marche njëkk a commencé ci àdduna bi yonentu yàlla Muhammad moo njëkk a marche au cause Seydina Omar Seydina Omar ne nañ génn jàppoo di wër kaaba gi di di wax baatu laa ilaha illa Muhammad rasulullah lu ñu ci fekk buñ dee ne nga yow Mouhamed buñ dee àjjana lañ jëm Mouhamed ne ko waaw mu ne ko ëppal na ma ko nañ dem ñu dem ñu jàppoo ñoom kaaba gi di marche ñu leen di sànni ay xeer seen deret yi tuuru nit ña ngi koy gis ci nettali ak ci yenn film yi nga xam ne donte du réalité mais mais histoire téere bi rek la ñu indi filmé ko léegi loolu ñoom ñu l'islam jaraloo leen loolu ba baat dëgg jug kon ñun buñ demee ba tolloog jamono boo xam ne dafa am lu répété waat du mel noonu ñun koo dégg nag mu naan bu ma fekkoon bu ma fekkee woon bu sëñ Tuubaa di xeex ma xeexle ko wala bañ koy yóbbu ci terrain ba ma xeexle ko nooteel gi ñu koy def nga noppi ci li ñuy def Ousmane Sonko bu sëñ Tuubaa ñëwoon doo xeexi koo dégg mu naan bu Alaaji Malick ñëwoon noonu koo dégg mu naan bu maam Khalifa Niass ñëwoon noonu koo dégg mu naan bu Kunta Ndiassane Laayeen Baay Niass mbooleem kilifa yi nga xam ne xeexal nañ lislaam liñ jaayante ba am liñ am koo dégg kenn ci seen taalibe mu ne bu diw ñëwoon de buñ koy noot ma dimbali ko wala buñ koy noot ma ànd ak moom wala kenn du ko yóbbu tey mu gis lii ñuy teg doomu moromu julitam donte du jullit sax waaye moromu sénégalais rek laa wax ñu koy teg lu métti lii nii nga noppi yaay première complice du Sénégal. d'accord léegi bu ñu ko bu ñu ko bu ñu ko analyser ci wàllu politique comme ni ko nit ñi di faral di waxee ndax lii euh, je pense que lépp c'est du politique ñii d'accord nañu ñeneen ñi d'accord ñu maanaam euh, ci rapport bi nga xam ne ñeel na Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko dem leeral mbiri na maa def wala defuma est-ce que loolu itam jaar nañu yegg si fii nii bay fàttali xare Badar itam. waaw xam nga mooy li ma wax rek. Mhm. Sénégal du réew moo xam ne maanaam dëgg daf fiy sax actuellement nii parce que ñi war a yeey xel yi bu buñ bëggee lëndëmal xel yi dëgg jooju dañ koy nërmil ray ko të tër ko ci suuf ci penc mi parce que fii koo gis mu ne porteur de voix la porteur de la mais bu yenn wax dëgg yi jotee pour nga jël sa responsabilité wax ko sax yaa ngi xalaat sa digganteeg kaso pour nga jël sa yenn responsabilité wax ko yaa ngi xalaat sa digganteeg ñu ray la pour nga jël sa yeneen responsabilité wax yaa ngi xalaat sa ñu nger la wala nangam wala li may am ak wala nangam wala dañ si yàq sama der wala nangam foofu maanaam pour wax dafay dafay difficile ci moment boobu lañ toll mais kuy waxal dëgg xam ne Ousmane Sonko amutoon benn benn benn benn benn otansu di toog ak Mame Mbaye Niang naan day wax Mame Mbaye di wax parce que Mame Mbaye moom njëkk ki di wax moom moo tuumaal boppam moom moo moo toog ci télé ne rapport am na mm-hmm. kon moom lan lay wooye Ousmane Sonko naan ko yow yaa wax na rapport am na. mais Ousmane Sonko may ma premier ministre. Mhm. actuellement Amadou Ba. Amadou Ba. dëggal loolu. Mhm. image yaa ngi fii. ministre de la jeunesse mooy gone gu yore dugg googu. dëggal loolu. Mhm. ñëpp di ko gis nee na ko demal nga leeral li jël say mbir. tey ba koy wax àndul woon ak ak ñoom. mais ba mu ànd ñoom. ñëw na ci li nga xam ne mooy bëgg lëndëmal xelu Sénégalais yi parce que bam mu àndut ñoom xam na lii réalité. di ko wax di ko wax ba ñoom ñu xam ne ñii bu ñu leen jëlut boole leen suñ biir boole leen ci mafia bi li bëgg duñ ko am ñu jël leen boole leen ci mafia bi ñu bokk ñoom ñëpp ànd ne benn nit la ñuy xeex benn nit boobu danaa si def tuuti parenthèse muy président Ousmane Sonko tey kilifa gu koy tëj tëjal sa buntu 2024 di nga ko tëjal sa buntu amul kenn ku ko mën a tere doon président 2024. Hmm. ci kattanu yàlla ak baaxam. parce que loolu. loolu jërul détail. Hmm. fi ñu ko wéer mooy ñiy voté seen ñiy fii ci réew mi bu ñu ko tegee ci loi ci droit ci yoon mu gañe leen bu ñu ko tegee ci jaay doole it mu gañe leen ndax bu ñu ko tegee ci jaay jaay doole askan bi ñooy atte te askan boobu di atte li ci ëpp ci askanu Sénégal actuellement Ousmane Sonko lañ ne yow la li ëpp ci diaspora bi Ousmane Sonko lañ ne yow la yàlla ci boppam sax Ousmane Sonko la ne yow la parce que c'est la première fois ñu faagaagal maanaam euh, euh, politicien ci biir Sénégal nguur gi fi nekk depuis deux mille douze ak léegi te fiituñ la jàppuñ la c'est la première fois ñii fiit nañ leen xëcc leen boole leen ci biir ci biir parti bi seen parti bi parce que Sénégal parti yi fi nekkoon yëpp déggatoo ci benn parti parti yëpp seey nañ ci benn parti bi nga xam ne moo pare pour gouverner maanaam à vie loolu nag yàlla du ko seetaan mukk ci askan woo xam ne pare nañ pour loolu loolu bu mu am yàlla nag moo dàq seetaan ci lan ci askan boo xam ne pare nañ pour seetaan nitam askan bu pare pour seetaan ay nitam moom yàlla dafay ku la recevoir ne man tamit pare naa pour seetaan leen askan bu fépp pour dimbal ay nitam yàlla nag ne man danaa ànd ak ci doole ji ngeen pare pour dimbal samay nit ma dimbale leen yooyu nag yëpp bu ñëwee ba taxaw ba ñu jël benn nit créé fi créé nañ fi lan dossier Adji Sarr dossier bi def un an deux ans presque mënuñ cee am benn source yu leer ko mën a téye kiñ na dafa violé mi ngi këram di naan ataay di dox ay aller retour di génn di dox soxlaam. déposé na fii ci diggante bi maire ñu fal ko ko. kiñ na dafa kiñ na dafa euh, dañ koo violé. ñemewul a génn ci réew mi ñemewul a génn dox. ñemewul a maanaam ñemewul a am benn territoire boo xam ne ñeme na ko génn dox ci réew mi ci ay ci jàmm ak salaamam kon loolu dafay firndeel ne boo nekkee ci dëgg yàlla ànd ak yow portée la boo nekkee ci ay kàcc yàlla beddi la. beddi saw xeet ci yow ak koo mën a doon ci biir montage yooyu ñu def yëpp nag mën a indi la dossier Mame Mbaye Niang yi lu ko tax a sulleeku parce que ñëw nañ ba cappaa ndaw hmm. dossier Adji Sarr ñu gis na tubaab yi duggoon ci réew mi li ci ëpp def ay def ay def ay seen seen xam nañ ne dossier bi c'est vide hmm. te dossier politique la ñu àgg ci ñoom waxtaanee ko ba fi nga xam ne mooy France 24 ngeen baal ma ci tur bi comme chute laa yoon nekk hmm. ak yu mel noonu ñëw def interview ak Ousmane Sonko yenn ci kilifa yi réew mi métti lu loolu lool na lan moo tax ñoom jaaruñ ci ñoom ñu ñëw direct ci opposant boo xam ne moo gën a radical ci ñoom ñuy def ak moom interview ci loo xam ne du réalité waatale boobee xamal leen ne leen loolu mooy suñ mooy suñu objectif ñun dañoo war a xool fu dëgg nekke déglu nañ ñii dañoo war a déglu opposant bi moom tamit moo xalaatam mm-hmm. te aussi tamit yoo yoolamalal sa loxo foofu lañ yem ak yow moo waral yii ngeen gis yëpp ñu jékki-jékki nag ne kon comme dossier bi c'est vide nañ gaaw maanaam dugal ci ay kilifa ñu wax ci ñu ne kilifa yee ci wax nañ ci arrêté nangam kilifa yi kañ lañ commencé wax ci dossier bi te waxuñ ci ñoom kon léegi lañ commencé déggal ko kilifa yi ci seen wax ñoom mm-hmm. Ousmane Sonko dafay mas a toog ne sëriñ sëpp ay simple citoyen lañ mësul am Ousmane Sonko mësul ñàkk respect benn kilifa diine amul kenn ku ànd ak moom kuy manqué respect kilifa diine. non la fois passée nañu gis benn vidéo boo xam ne kenn ci patriote yi. wax naan euh, bakkanu Ousmane Sonko ba ci tudd sax yeneen kilifa yi gis nañu ñenn ci ay patriote sax di ñaawlu loolu itam. waa xam nga li may faral di wax toujours. Mm. ne wax buñ ko waree régler fañ ko waree régler. Mm-hmm. te régler wuñ ko fañ ko waree regle offensif bi day bari. tout à boo taxawoon fee di wax ma taxaw fii di wax. Mm-hmm. kenn ñëw suñu diggante wax ak yow nga dégg mu wax ak man ma dégg kenn du dégg na ñaar ñu ngi doon wax. Mm-hmm. waaye óor boo xam ne nii ñun kese ñun ñaar kese fa ne seytaane moo ñetteel di la ruux di ma xëcc di ma ruux di la xëcc ba keroog ñu dajee ba daneen dafa am óor bu ngeen déplacé woon ak yéen ñaar kenn ku ci nekk rëcc lay mujj mooy lan mooy réew mi dafa passé fu ñu waroon a toog waxtaanee li tax mu passé ko mooy maanaam guuto yu mel nii bu amee ñu war a jël seen responsabilité jël ko dajee ki nga xam ne nangu naa bàyyi lépp ngir kilifteef muy muy muy kilifay parti bi Ousmane Sonko mhm. problème mu Adji Sarr ba méttee ñoom ñii ñu ci ëpp kenn ku ci nekk di daw di wuruxlu ba ci mambay ñaa mii toog tey ñoom ñëpp kenn ku ci nekk di daw di wuruxlu di naan damaa bëgg a ñëw ci Ousmane Sonko damaa bëgg def damaa bëgg a def naa di wër di ut ay numéro Ousmane Sonko yaa ngi dégg. léegi yooyu yëpp am ñu ñu dajale yooyu yëpp téye ko defuñ ko armée de guerre téye ko pour noppi Serigne Mountakha Bachiru yàlla na yàlla euh, yàggal ko fi te ànd ak mboolem xalifa yi. yebal délégation sëñ Bass Alxuraan. mu jugee Poroxaan sëñ Bass Poroxaan ñëw ñëw fii toog ak kilifay parti bi ñu waxtaan mu wax lim bëgg Ousmane tegal ko ci ne ko kilifa lum ñaan duñ ci teg baat ñun waaye nag danaa indi condition yoo xam ne sama àq ak sama yellaf la man man nii ak nii ak nii laa bëgg. yooyu condition ba tey mi ngi wéy. yooyu condition am non non mm. parce que li tax wéyul mooy bu wéyoon danañ ko may jàmm ak salaamam. d'accord. condition yu ñàkk woy moo waral tey Ousmane Sonko su génnee ñu koy teg fitna doo gis benn benn kilifa wala benn responsabilité boo xam ne jiite nga lenn ci say taalibe nga jël responsabilité wax ak askan waaye wax ak ñi nga xam ne ñi ngi def lii. amul parce que tey lii nii bu fi fekkoon maam Abdoulaye Sy Dabakh hmm. xoolul ci Macky Sall xoolul ci Ousmane Sonko diggante moom ak boromam lay xool. Hmm. day toog wax réalité li nga xam ne sénégalais yi ñu ngi koy dund bakkan yi nga xam ne ñu ngi koy faat bakkan koy faat. pourquoi ñu bëgg a jël ñu bëgg jël problème yi teg ko ci ndodd Pastef wala teg ko ci ndodd Ousmane Sonko Ousmane Sonko dafa yor armée bi Ousmane Sonko dafa yor dafa yor bi Ousmane Sonko dafa yor santé bi Ousmane Sonko dafa yor état bi dafa yor ay ministre dafa indi ay nervi il faut que ñuy waxante réalité yi nga xam ne mi ngi ci kaw dëkk bi di maanaam di dox c'est la première histoire du Sénégal maanaam gouvernement boo xam ne dañuy regretter ay nervi dugal leen ci biir gendarmerie bi yaa ngi dégg nervi yooyu di am droit di jàpp ay Sénégalais di leen dóor gendarme yi di ko gis. da nga ci am ay firnde. da nga ci ay ay firnde loolu dafa loolu dafa jar a laaj nga ma da nga ci am ay firnde. Mm. waaw jarul laaj journaliste nga. Mm-hmm. ñeneen ñi ñu ngi ci terrain bi. yéen a ngi gis loolu bul ne dama koo gisut. Mm. yéen a ngi gis loolu man maa ngi koy gis ñeneen ñu ngi koy gis. boo ne dama koo gisul dafay mel ni kon yow laaj bi nga may laaj. nekkoo ci terrain bi di doxal di doxal société bi mm-hmm. ñëpp mboolem télé yi non non non non nañ waxtaan. boo ne am na nekk ci biir gendarmerie. comme cela non dama ne la. Mm-hmm. déglul sama wax dama ne la. histoire Sénégal mi ngi soog di am état buy regretté ay nervi ñuy jaxas maam tey bu bu bu Macky Sall bu bu Ousmane Sonko doon jug di dem. Mhm. danañu ut ay nit yoo xam ne dañuy jaxasoo ci biir nit ñi. Mhm. ñu yaakaar ne ñii ay ay patriote duñu ay patriote ay nervi lañ pour escanter xale yi. kiñ kiñ kiñ euh, euh, kiñ gaañ bërki démb maa ngi masaw waa Medina. Mhm. ñu bëri sax dañ naan nervi la mais man loolu maanaam. d'accord ma ci parce que non man man côté bi ma ko xamee mhm. man en personnellement xameewu ma ko côté nervi mhm. parce que man dañ may introsé ci chute yeeg yu mel noonu mhm. côté journaliste wala côté internet laa ko xamee man damay seede sama diggante ak sama borom côté internet laa ko xamee mais li ci ëpp importance mooy ay du yem ci bopp borom pourquoi xale yi tëb rek ne ne kii nervi la maam jàppee ko bëtu nervi ray ko pourquoi kon kon kay problème mi ngi bëgg am problème boobu di bëgg am nag dañuy ñaan armée Sénégal ñu jëlaat seen i droit ak seen aq ak seen yelef liñ moom ñu téye ko mooy maanaam kenn warul leen a rax wala kenn warut a nekk benn sécurité di yor di yor arme sécurité Ousmane Sonko yi amul ku ci yor arme amul ku ci ku ci yor matériel bu ndaw sax Ousmane da leen ko yaaye matériel mhm. yu ndaw yii ku ko ci yor Ousmane ne la Ousmane ne la sànnil wala bu ko yor wala maam patriote yi xiir yi ku ci jënd yenn arme yoo xam ne nangam jox la ko pour encadrer Ousmane Ousmane def leen maanaam bu kenn yor benn arme boo xam ne ni loi da ko tere. d'accord pour pourquoi may ma tuuti pour pourquoi loolu Ousmane man koo wax ñi nga xam ne ñooy ay ñooy ay ay ay jegeñaaleem ñeneen côté bi ñu ànd ak ñoom mënuñ ko wax ay jegeñaaleem beneen bi ci des lu tax nga laaj ma ne ma ndax damaa am preuve ci ne ñoom dañoo am ay nervi mm. Ousmane wax na ko yéen yéen ko interview keroog bi muy dem tribunal yow non. yéen a taxaw interview ko yéen yéen sidi yi mhm. mu ne leen dafa am ay nervi yu nekk ci ron ci kii bi yoo xam ne ay ministre ñoo leen regretté mhm. ñu pare pour nangam ak pour nangam photo yi di cir di circuler di circuler ci biir ci ci ci internet beeg yu noonu mhm. kenn weddiwu ko c'est la première maanaam histoire du Sénégal nga convoqué doomu aadama ne ko man mi la convoqué par force maa bëgg nga aw fii nga aw fii loolu fu am loolu dinañ ci dinañ ci ñëwaat mais avant boobu dañuy ñëw ci état wu santé wu Ousmane Sonko jege nga ko lool gis nañu keroog nga ñëw suma assistance ngir xool euh, wérgu yaramam fu mu toll euh, naka nga ci mën a war dikkalaatee sénégalais yi. waa ñu ngi dalal xelu sénégalais yëpp na leen am nañ njort bu rafet ci moom ne dana jugaat continuer politique am comme ni nga ko doon defee. Mm. te continuer bi du am lenn lu muy teggi tànkam ca lam nekkoon. lu ëpp lam tegoon tànkam ca lay nekk parce que lenn lu mu teggi tànkam rek mel na ni lam doon au Sénégalais yi nekkul dëgg ci moom te Ousmane mi ma xam man xaw ma mi keneen xam mi ma xam man su tëddoon ci lalu sukuraat sax nga koy xoj mu xam ne boo ko bàyyee mu dund te sénégalais yi sauvé wu wala boo ko xojee mu dee sénégalais yi sauvé wu billahi wallahi taala mu ne mu ne la yegg jekkali ma ma dee sénégalais yëpp sauvé sauvé wu mm. parce que lii projet bu buñ buñ bu mu porté la projet boobu mu porté nag maanaam bu Ousmane yàlla tere demoon sax projet bi dafay yegg parce que dañoo am détermination boo xam ne maanaam suñ gëm-gëm la ne Sénégal dafa war a passé soixante ans yi li fi nekk hmm. maanaam jëm ci leneen loo xam ne nii aulis ñuy yegg ñuy jeggaani yalwaani ji yeneen réew yi nga xam ne ci ñun la ñuy dundee ba pare ñu ëlbatiku di leen yalwaan. d'accord mais Sénégal dafa bëgg à chaque fois li nga xam ne moom mooy pratique. projet bi maa ngi dégg ñu naan projet bi projet bi alors lan mooy projet dëgg-dëgg itam Ousmane Sonko. projet Ousmane Sonko de su ma la ko doon tënkal dama la koy tënkal ci ñeent. bi ci jiitu mooy ñëw na ci langu politique yundu bunt bi xam ni bunt bi dañ koo tëj néeg bi ay sénégalais ñoo fa nekk di nelaw. Mhm. sénégalais yi fa nekk di nelaw nag ñu taalal leen climatiseur bi ñu leen taalalee climatiseur ba mu sedd guy ñu tëj bunt bi ña ca biti. ñoom it tàll tolloog 30 kilomètres heure ci benn néeg néeg boobee ay jamaa ki or ak xaalis fi ne néeg bii nii maanaam ci buntu néeg bi lañ teg tuuti bonbon ak ndox boo yeewoo rek ñu saxal la benn bonbon boo xam ne dafa am maanaam dafa am genre loo xam ne boo ko naanee rek nelawaat jox la ndox nga naan tëddaat jàpp ne sa àdduna yow ci néeg bi rek la yem fekk ñee ñu ngi ca biti maanaam di di di di toroxal jaam ñi maanaam xam nga li may bëgg a wax misaal mi. j'ai compris Ousmane Sonko rek yoot yoot ba ubbi bunt bi. Mhm. xam li nekk ci néeg bi xam li nekk ci néeg bee. ñi nekk ci néeg be bee bëggoon koo xëcc pour mu ñëw ànd ak ñoom ci seen caaxaan yooyee ñu koy jox di ko teral ñu nekk ci néeg bi buñ ma sax xam li xew ñoom nañ tëdd di nelaw ko yeewu rek Ousmane Sonko yoot ba dugg ci biir néeg bi tëj bunt bi xëpp ñëpp ndox ñu jug toogandoor mu ubbi bunt bi ne leen yundu leen ñu yundu mu ne leen gis ngeen lii ñu ne waaw tee seen i gémmiñ leen lii yéen ñëpp yéen ñii yéen ko moom waaye pour ngeen jot ko ñu ne waaw mu ne gis ngeen bunt bii ñu ne waaw mu ne ay courant yuy maasee ngi fi ay pont yuy jamee ngi fi ay ay dëj yuy jamee ngi fi lépp luy lor doomu aadama mi ngi fi mhm. avant muy dugg fii sama yaram dafa xotteeku ak ak ay deret di sotteeku mais damaa bëgg a dugg pour xamal leen mhm. mais pour ma génnaan nag dem ca ñee jël lañ yor ñëw indil leen ko dafay tombeek yéen ngeen bëgg man ma jëli ko yéen yéenay ànd ak man accompagner ma ma jëli ko indi ko jox leen ko bu boobaa ñoom ak yéen ngeen yem képp wala ngeen gën la leen yéen ñi nekkoon ci néeg bi di torox mhm. nga wax ji wala déggoo ko maanaam lii kese mooy projet ci misaal bu gàtt rek parce que maanaam su may tegal étape naan la ay nef ay ay ay ay gañaa gañaa ay nangam nangam day gudd mhm. mais lii mooy tënku projet bi mhm. mooy yee xelu sénégalais bi nga xam ne soixante ans suñuy maam yi suñuy baay yi ñenn ñi nga xam ne maanaam kenn ku ci nekk buñ la tey ministre nga nga ñëw yaa gënoon a nekk baadoolo ci koñ ba nga dëkkoon sa salaire mënul jënd deux ans bu ñu ko doon calcul sa salaire mënul jënd këru cent millions. Mhm. deux ans. deux nga falu ministre wala dara. Mhm. un mois deux mois nga jënd kër gu jar trois cent millions. di dawal oto boo xam ne amaan président bi sax du ko dawal. Mhm. maanaam sa koñ képp koo xam ne ni moo la daan lebal di la di la di boo ko rombee baaraam nga koy nuyoo. te li ci ëpp ci état bii ñu gis. maanaam ay baadoolo rek li ci ëpp la président bi fal. li ci ëpp te li ci ëpp lu ko yàqal nag ci état am loolu la. ay maanaam ay baadoolo yoo xam ne sale boulot rek lañ xam. Mhm. duñ ko wax dëgg duñ ko dimbali ci liggéeyam duñ ko dimbale ci nu muy gouverner duñ ko dimbale diggante moom ak kilifa yi duñ ko dimbale diggante moom ak opposants yi duñ ko dimbali diggante moom ak citoyens yi nekk ci réew mi. parce que citoyen bu nekk da am sa àq ak yelleef bi nga war a yeeyoo. waxkat bi journaliste bi tey mhm. amul sañ-sañu sax. taxaw génn yéen information yi bu ko defee ñu indi ay articles yoo xam ne ni ñoom ñoo ko tëgg ràbb ko pour lan pour pour pour tënk ci doomu aadama yi. ba kenn ku ci nekk doo am sa àq ak sa yelef boo war a wax. ci réew moom lañ nekk. d'accord avant ñu ñëw sax euh, ci ci Mara Nervi ñi ngi koy dégg depuis démb ak léegi di ñëw ci arrestation Cheikh Omar Diagne Abdou euh, Kurum Xax voilà euh, ñu ñàmba ci itam daam daam boo ci gis nañu émission bi nga xam ne def na ko suñu naataango yu TFM yi dafa génn gis nañu itam la fa xew naka nga ñu ci mën a dikkalaate ci li nga xam ne xew na ci euh, ci biir semaine bi. moom maa ngi lay waxu nervi mhm. sànq da nga wax sama xel dem ci dafa am suñ bokk bu ñuy wax sëñ Xaadim Mbàkke Jinne. sëñ Xaadim Mbàkke Jinne. ñoo bokk benn mouvement bu ñuy wax mouvement moo rab doomu daara yi. Mhm. Euh, yàlla dafa dogal biñ seetee keroog Ousmane bay dëpp ay guddi ay vingt et yooyu rek mu ne ma ne ko man sama oto dama koy mujj bàyyi cité kër góor gi. parce que pneu bi dafay dafay dafay lox mhm. bu sama mécanicien bi ñëwee xëy xool ko parce que óoluwuma parce que óoluwuma daw ak moom te sànq bi may ñëw deful nii mi ngi commencé mi ngi commencé lox lox bu métti bàyyi ma bàyyi ko côté kër góor gi côté kër Ousmane ma gaare ko foofu aj verre bi bi may génn nag moom départ na dem ci la moo téléphone dama est-ce que doo jël dama yàkkamti ndeke moom bi mu bi mu départ bay war rond point bu mag bi mooy booy génn ci kër góor gi ba avancé tuuti mhm. la benn pick-up kal pick boo xam ne amul plaque pick bu blanc kal ci kanamam. Mhm. ay ponkal wàccee fa def ay nuñ koy waxee sax. ay kagul. Mhm. Sénégal état de Sénégal bu ñu demee ba mën a bàyyi maanaam yenn nit ñi nekk ci biir maanaam seen seeni sécurité di ànd ak ñoom di def ay kagul. Mhm. kenn mënu leen a xàmmee kenn mënu leen a identifier loolu ban loi la ñu ne déetuwaay ñu wàcce ko ci otoom. xool moom xaadim xool oto bi li ci nekk lépp. nangu téléphone jël téléphone mu topp leen ñu dóor lacrymogène ci kanam oto bi diggante fii xam nga lacrymogène boo ko dóor saxaar si day bari mhm. diggante bi saxaar si jugee yu mel noonu rek ñoom jàdd nañ moom xamatul fu ñu aw ku la def loolu mënu laa def leneen man ma jël taxi mhm. billahi wa rabbul kaaba yàlla lay seddal man ma jël taxi mhm. sama taxi man bi mi ngi may dégg patriote la mu mu déparé ci ta kër góor gi ñu ñu ñu ñu ñu ñuy dem biñ génnee euh, rond point kii bi comment dirais rond point euh, bi génnee ci mbedd bi jëm laayeen yi mhm. mbedd boobu la ko awee parce que jour boobu euh, manifestation yi dafa bëri woon ci dëkk bi muy teggi mhm. biñ génnee foofu lañ gis benn scooter topp ñu ndeke mi ngi toppee grat cité kër góor gi boo xam ne ñaari ponkal ñoo ci nekk mu ne ma maa ngi xool sama rediviseur Cheikh ay wax de mhm. ma ne ko ma ñaari scooter yi yow lañ topp boobaak léegi mu ne ko ah mu ne ma waaw mu ne ko noo ko seetloo mu ne ma maa ngi lay bàyyi xel moo tax ma doon jàdd jara di xool ba xam dañuy aw seen yoonu bopp wala ñun lañ topp mm-hmm. léegi comment vous lu ciy pexe ma ne ko demal sama kër demal sama kër direct mu ne ma noono waruñoo xam sa kër parce que mun nañoo xam sa kër directement mm-hmm. ma ne ko ok d'accord ma oo sama benn xarit boo xam ne euh, maanaam takk der la mm-hmm. ma oo ko ne ko jàmbaar foo nekk mu ne ma waaye man de maa ngi sama kër madame moo xaw a tawat nii ma expliqué ko ko mu ne ma waaj ñëwal sama kër direct maa ngi kër gi ma ne ko dokke ma ne ko ok ma ma ma départ géejewaay la li may wax ni géejewaay la dëkk mhm. te parcelle lañu ma ne naroon indi mhm. mu jël kii bi ba tey mu topp ñu toppaat ñu ci kaw kii géejewaay bi ci kaw VDN bi toppu ñu topp ñu topp ñu bi mu jàdd sawaay sawaay sama sama xarit boobu génn maa ngi leb tuur bi taxaw ci taxaw ci buntu kër gi soltinem mhm. taxaw ci buntu kër gi bi ma ñëwee wàcc nuy wanteeg moom moto bi ñëw rek fif romb ma jàll ba mu taxi bi ne ko ñaar ñee ñu nuy wante mu dugg. Mhm. ba mu taxi na ma li taxoon bëgg ma wàcc nga wàcc sa kër ñoom peut-être ñu bëgg xam sa kër. loolu lañ fay am soxla. Mhm. mais réew bu demee ba tollu foofu. bu demee ba réew tollu foofu maanaam mu jaral leen képp koo xam ne yaa ngi ci internet di wax di défendre benn projet. ñu lay topp ñu lay topp. Mhm. wala ñu lay tiire ay bal wala ñu lay nangam te amul kenn kuy ubbi enquête wala actualité wax ci. télé yu mag yi amul kenn ku ci def revue de wax tolluwaayu réew mi ci dëgg. amul kenn koo xam ne yaa ngi def journal boo xam ne journal réalité la ci li ci ëpp nag laa wax ci dëgg amul ñenn ñi dañoo far ba nga xam ne dañoo far ñenn ñi dañuy wax dëgg ba nga jàpp ne dañoo far parce que Sénégal actuellement fi réew mi toll booy wax dëgg da nga koy dëgg ji yëpp ci Ousmane Sonko nga koy jox booy wax safaan ba ñee ñoo féetoo safaan ba léegi nag bu fekkee da ngay gis dëgg toujours ci Ousmane Sonko di gis safaan ci ñee toujours bu yàggee ñii dañ naan yow da ngaa far fekk faroo dëgg ngay wax d'accord lii moo nekk ci réew mi. ñu ñëw ci arrestation Cheikh Omar Diagne loolu moom moo gën a tuuti ci. ñu ngi ci réew mi loolu moo gën a tuuti ci liñ war a def feeg 2024 ñoom. Hmm. waxoon naa ko ci sama yeneen interview ne président euh, Ousmane Sonko ak ñi ànd ak moom kenn ku ci nekk fagarul jàpp na mille fi 2024 feeg 2024 ñett yi mu ngi lay xaar. Hmm. sa bakkan mën na ci rot gaañu gaañu walla kaso xaar ko. Hmm. bakkan bu rootit mën na ci xaj yii nag képp ku koy xaar ci projet engagement dong ak détermination ngay mën a am pour mën a continuer képp kuy wax dëgg it mooy xam ne chroniqueur nga moo xam lu mën a doon di wax dëgg ci télé yi wala ci plateau yi jamono jii waxuma ko waxul dëgg nag mais képp kuy wax dëgg dëgg ji fenn la féete mooy ci Ousmane Sonko. Hmm. or boo koy wax it maanaam fagarul jàpp na ñoom ñu ngi ci sa kaw parce que li tax ñu nekk ci sa kaw mooy attestation yoo xam ne maanaam da ngay dem ba laaj ban réew lañ nekk dañ lay jël yóbbu la def la mandaa dépôt jëlee la mandat d'amener wala ci ay attestation yoo xam ne kenn xamu ko ci ay wax yoo xam ne aussi tamit maanaam ñii donte wax nañ lu garaaw am na ñu wax lu gën a garaaw nekk ci ñoom kenn defu leen mandat d'amener Suzanne Camara xaw ma nangam toog na bu yàggut waxoon na fi ne Ousmane Sonko dañ ko war a rey mhm. bu yàggut waxaat na fi ne nañ dem taali këram mhm. kan moo ko jël si kan moo ko jël si ñaata ay nit ñooy toog ci ñoom di def direct di génn seen kanam nëbbatuñ làqatuñ nekk ci réew mi di wax laaluñ leen la preuve yaa ngi wax ay euh, ku wax kilifa yi d'accord loolu rafetlu wuñ ko mm-hmm. man kilifa diine la man dal kilifa diine yi ñoo ma gënal Ousmane Sonko téeméer yoon mm-hmm. téeméer yoon billaahi wal kitaabi dal kilifa diine yii ñu gëm ñoo ma gënal téeméeri Ousmane Sonko wante mm-hmm. ñoom euh, état bi seen ñaata nit ñoo fi nekk toroxal ay kilifa kan moo fi woon sëriñ si ay simple citoyen lañ kan moo fi toogoon xas sëñ Abdou Aziz Senior yàlla na yàlla yokk leeram Abdoulaye Wade tëkk ko mu daw génn réew mi mm. Macky sàll falu falu ñëw fal ko indi ko ci réew mi kan moo fi toog saaga Baye Mbaye MC Niass doomu Mawlana Cheikh Ibrahim Koura Macky ñu jël ko yóbbu ko assemblée nationale mu nekk député saaga kat Fuuta Tampi toogu fi saaga fi Ousmane Sonko saaga fi Baye Mbaye si mm. na ko Baye Niass juru la lu gën a rëy wax jooju ci doomu Mawlana Cheikh Ibrahim ñu ñu ñu jël ko di ko di di ko teral mm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen gis nga mbir soo ko bëggee régler ci dëgg mm. da ngay njëkkee ci sa njaboot. léegi léegi ñu ñëw ci euh, le 30 taxawaay bi nga xam ne am ngeen ko laataa ñu jeexal. ñun le 30 amaguñ ci benn wax. benn tontu parce que. ñaari chose moo tax amaguñ ci tontu. Mm. bi ci jiitu mooy suñ bëggee stabilité réew mi dalak réew mi. Mm. seen dossier caaxaan yii ñuy ubbi nañ ko jël ñu teg ko fële. man mbay nee na parewul pour bàyyi. waaw xam nga nit bu buñ la saraxee. Mm. buñ la saraxee ci ay mbir dañ lay gën a rek te yow doo xam li xew. fan dañ koo saraxee moom man mbay. wallaay parce que li tax mooy nit ku noppi boo ko dugalee ci lu mu xamul day tëli tëli rek. man loolu laa jàpp boog d'abord mooy moom mën na bañ a pare mais yàlla ci boppam moo pare moom dégg nga wax ji. moom Mame Mbaye Niang mën na bañ a pare ci dossier bi di def lu ko neex am na ci droit. Mhm. mais yàlla moo pare ci dossier ay Ousmane Sonko. ay dossier Ousmane Sonko ubbil nañ ko bii ubbil nañ ko bii ubbil nañ ko bii désolé dafa doy parce que li tax mu doy mooy maanaam dossier buñ ko ubbil ay nit ñàkkee ci seen bakkan. Mhm. ubbil nañ ko dossier Adji Sarr 14 morts ou lu ko ëpp dee ci ñu ubbi dossier barki démb bii lu ëpp sept personnes commencé tey faatu ñaata nit ñoo ci gaañu ñu tiire ci nit ay bal ñu ciy xotti ay orma ay kilifa yaa ngi dégg ñu ciy ñu ciy jàpp ay kilifa di leen tëj jàpp ay nit di leen xoxatal jàpp ay ay doomi sang ay doomi kilifa di leen monté di yàq seen image ñuy taxaw maanaam di di di di làqatoo loo xam ne nii du dëgg du yoon ci gannaaw loo xam ne bëgguñoo salfaañu lu dul àq ak yelleefu Sénégal te ñoo xam ne yow boo leen xoolee da xam ne ñii nawloo woo leen démb waroo leen tey ñu taxaw pour yàq ak àq ak yelefu doomu aadama yi loolu moo moo waral ñu war a taxawaat seetlu ne la tarante pour mu ñëw te am c'est difficile première a ngi noonu deuxième mooy dañoo tal ñun leneen lu dul ay projet mooy sun leader bi nga xam ne mi ngi ci lalu feebar tëdd moom lañ tal d'abord ba pare ñun mm. ak avocat bi nga xam ne mi ngi ci lalu feebar dem faju mais avocat bi tam ñu ngi gis ay image euh, ci ci benn restaurant et tout nit sax ñu ngi koy partagé et tout euh, sa xalaat ci mbir moom. xam nga nit nit maam sénégalais. Hmm. dadul dadul dadul wax lim war li ko lim lim war a wax dadul commentaire it lim war a commentaire. man kook duma ko tontu. parce que dama amul envie tontu ko ndax borom xam-xam bu yàqu la. Hmm. borom xam nag boo demee ba yàqu doo doyloo sax xam sa xel ngay doyloo boo doyloo sa xel nag sa xel fu mu la rek ngay waxee ba nit ñi dañ lay mujj jéppi moo tax moom vraiment awma ak moom benn wax parce que nawlawuma ko ku ma nawlawu du ma wax ci yow voilà parce que mbooleem lu ñuy jël di ko tuuma gor di ko di ko tuuma Ousmane Sonko rek moom yàlla dogal na ne moom kenn tuuma ko def ne fàng na dajj ci penc mi tege kon moom duma ko wax ma daaneel foofu mhm. France mhm. wala fa mën dem ci Europe di faju ji maanaam waxuñ la dafa tëdd ci lalu su lalu sukuraat comme Ousmane Sonko il faut buñ nit ñi di wax ñu xam maître Clédor dafa noyyi poudre noyyi bi mu ko noyyi wóoluwul ne lii lii la wala lii lii la mu jël avion immédiatement dem pour xooli ji yaramam xooli ji yaramam nag tegtalewul ne dafa war a tëdd ci pousse wala dafa war tëdd ci la wala war a dox war na dox ñe da ngi feebar di dox mhm. ba nag club daanu dee imaam Aliou Badara Ndaw mii waxoon nañu dafa feebaroon di dox ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. ba jékki-jékki la daanu club de mm-hmm. am na loo xam ne nag boo ko teelee calcul da ngay teel a génn nga dem xooli ci sa yaram lan moo ci nekk. loolu kese la. Mm-hmm. mais Kanta nag nangam ak nangam Ousmane daal moom. alors Ousmane fan ngeen toll ak euh, passeport bi pour mu génn dem faju ji moom itam. ñun jamono ji sax wax waxaguñ waxi passeport jamono ji lañ tàll. Ah, li ñu dégg ci bokk ci xam nga xam nga nit ñi xam nga nit ñi danaa leen leeral tuuti di leeral patriote yi. Mm. képp ku leen wax ne Ousmane feebaru day fen képp ku leen wax ne Ousmane sonul day fen mm. képp ku leen wax ne Ousmane mi ngi koy gis waxul dëgg ba ma fa mujjee jugee ñu interview ma mm-hmm. man boog d'abord ma tiim ko ma tiim ko laa wax de mm-hmm. man ku ñuy wax kilifa bu yaanaamaar mm-hmm. ak caat ak yeneen kilifa yoo xam ne ñëwoon nañ fa xaw ma seen tur Ousmane keroog waxul ak kenn buñ ko tiimee presque da nekk ci nelaw ak xoole maam day mel ni lu këf nelaw tuuti xoolewaat mel ni lu këfaat nelaw tuuti xoolewaat sim tuuti ci la docteur bi ñëw ne jéggal leen ma ñoom yéen ñëpp na ngeen génn na fi garde corps yi rek des. ci baatin xooloo ko benn yoon. non non non non loolu pas ay ba ci waxu baatin moom ñu bëri nee nañ dañ ko dañ ko dañ ko sànni benn substance euh, ñu ngi gis yenn image yi euh, je pense que itam war nga ci mën a benn taxaw seetlu. waaw ñun daal liñ ci mën wax actuellement. Mm. comme maanaam euh, émission wax tolluwaayu réew mi ci lañ mo maanaam ci lañ ñu invité. Mm. bëgguñoo génn dem ci beneen origine boo xam ne. d'accord voilà d'accord yan révélation nga ñu defal ci euh, ñi nga xam ne ay ministre lañu comme mën nañ cee tudd euh, Antoine Félix Diome wala Ismaïla Madior wala itam ki nga xam ne moom ngeen di bañ a tudd Pape Malick waa xam nga doomu aadama moom d'abord da nga war a njëkk a teel a defar sa image. Mm. defar sa image dana tax nguur gu ñëw wóolu la defar sa image dana tax aussi tamit génération bu ñëw wóolu la nga ànd ak ñoom defar sa image aussi tamit dana tax fépp foo jugee nar a demaat feneen fa ca des danañ am yaqin ak kóolite wu ne yow mi maanaam meloo woon nii bi ci jiitu mooy Antoine si John moom lay sànni message message bi ma koy sànni mooy dang ni taaliba Cheikh Ahmadul Bamba nga xaadimul rasul te jàpp naa ne bokk nga ci ñiy naqarlu ni tubaab bi exilé woon Cheikh Ahmadou Bamba ba yóbbu ko yaakaar naa ne it sa xel ak sa xol bu dee murit nga laa wax yaakaaroon naa ne sa xel ak sa xol bokku na ci ñi nga xam ne nee nga bu ma fi fekkoon kenn du ko yóbbu waa tey bu la fi fekkoon kenn du ko yóbbu yow yàlla dénk la maanaam ngay ministre de l'intérieur lépp luy sécurité ak kaaraange doomu réew mi tege ci sa loxo ngay ngay nangu ñuy faagaagal benn sénégalais ngay nangu ñuy salfaañ àq ak yelleefu benn sénégalais mm-hmm. ngay seetaan aussi tamit ñuy pamti pamtee benn sénégalais ngay seetaan ñuy xotti yére benn sénégalais ngay seetaan ñuy xëcc benn doomu adama ci otoom di ko génne par la force ba koy def loo xam ne ba muy dugg ci oto bi nekkatul loolu lan moo ci sa rôle lay laaj mm-hmm. d'abord première lan moo ci sa rôle. d'accord parce que Sénégal lay fi dafa yomb. Mm. da gis ku génn mi léegi ne non man d'abord lii yeguma ko woon santuma ko woon armée bi defuma waxuma leen woon lii mm. parce que nangam nangam kër gis nga armée mm. armée même sa papa sax bu defoon lu dul dëgg mm-hmm. ñu ne demal nga jëli ko ci droit ak lu da nga koy jëli luñ ko sant lay def luñ ko sant defu ko. d'accord ñu ñëw ci Ismaïla man déggoo li ma la wax ñaar ñi ci des moom vraiment pare woon pour <laughs> pare woon pour tontu léegi ñu jeexal ak gàtt gàtt gi fan la toll moom exact. fan tolloon la toll rek. xam nga ñu bëri dañuy wax dañuy wax euh, ma tëjee foofu leeralal yenn borom xam-xam mu saay-saay yi parce que borom xam-xam day am mais borom xam-xam mu saay-saay day am. Hmm. mooy jël masala tëggee ko noo xam ne dana la arranger te du noonu lay firee. Hmm. te Ousmane lépp lu mu wax da koo tibbee ci alxuraan gatsa sa bi maanaa anna nafsa bin nafs wal ayna bil ayn wal unfa bil unf mm. loolu la yàlla wax yàlla moo njëkk wax sa gatsa yàlla ba mu tëralee àdduna ba ba àdduna taxaw mu tëral doomu aadama kenn ku ci nekk da doon am droit takk sa seexandoor ñu dem ba ci biir yàlla indi maanaam xaajaloo na kenn ku ci nekk amoo droit def loolu mm-hmm. ñu dem ba ci kanam ñii di def bu seen bàppa yi gaañoo muy muy yahudi ñu dondu seen seen yaay. ñu dem ba ci biir yàlla dégagé waat loolu lépp mu ngi bëgg a programmer àdduna pour tëral ko pour rayante beeg yu mel noonu ak maanaam wàññeeku. bi yàlla india loolu ba pare nag mu muy indi ay yonentu di installé di installé di installé ba gën ci mindeef mu wàcce wa annahu xayru xalqillaahi kulli mi mooy yonentu yàlla Muhammad bi mu wàccee nag maanaam mu ordee ko. Mm-hmm. ordee tamit ay saxaaba yu ko gëm. Mm-hmm. saxaaba yooyu gëm ko dañoo ñëw ci biir gatsa gatsa gi moo bi nag mun na mun na vulgaire mais mun ci déggin mhm. mais olof la mhm. mun na bañ a vulgaire ci làkkin wi léegi bi saxaaba yi ñëwee ànd ak ñoom ci loolu ñuy jël yonentu yàlla Muhammad di ko teg ay ay métit mm. di ko teg ay daan ba dem kër nijaayam ñu koy sànni ay xeer mu rutanawaat ñib si mm. yàlla ne d'abord désolé doy na demal nga xare ak ñoom demal nga xeex ak ñoom gatsa gatsa dugg na yonent yàlla Muhammad maanaam xolu yërmandeem gi mu ne pourquoi maanaam lu tax ma war a jàkkaarloog ak sama moromu nit di dóorante yàlla fa la ñu xamalee ne pour nga am indépendance da ngay xeex pour am ko pour nga am liberté da ngay xeex pour am ko jàmm nit mënu ci sax ay maanaam lu ñurug baatu ay te ñaanaluñ ko yàlla mu am ci Sénégal mm. mooy indi jàmm parce guerre mondiale bi mu bu guerre mondiale amutoon du am lii yëpp du ñu am liberté bi yëpp mais guerre moo am guerre mondiale passé am ñun jekku mhm. ñañ jekku nangoo toog waxtaan ak kal ña leen jekku mhm. ñu toog ci taabul ji waxtaan ñii féetoo économie bi ñii féetoo nangam ñii féetoo nangam ñii féetoo nangam bañ naan réew mi mooy la puissance du bi mooy la nangam première langage bi mooy première langage du monde mhm. nangam nangam waaye benn langage amul première du monde nit ku nekk fa nga nekk mooy sa langage du monde mais yëpp bi mu dajalooyee nag ba yonent bi am indépendance taxaw nag yàlla ne ko nag ah yaa Muhammad léegi nag indépendance bi ñëw na pour wax la yàlla ne la yàlla bëggul sax kuy kuy néewal doole yàlla ne ko nag léegi lakum diinukum waliya diin léegi nag comme indépendance ñëw na mhm. yemal ci sa diine nga bàyyi leen ak seen diine c'est-à-dire mooy dem ga ba am doole ji nga bëggoon mhm. ñoom dootuñu la attaqué yow dootoo leen attaqué léegi la paix mhm. indil jàmm léegi laa paix boobu nag ñu indi jàmm ñu demaat demaat ba ba dara yënguwaat ak yu mel noonu yàlla ne maanaam bëgg a tëral nag wax ni doomu aadama di war a dundee yàlla ne ana nafsa maanaam képp koo xam ne maanaam fat nañ sa bakkan bi nafsi nañ jël bakkanam mooy gat sa gat ku ku ma dóor ma dóor la ku ma ray ma ray la bala balang maa ma ray la boo ma boo ma saaga ma fayu boo ma nangam ma nangam mu ne wala ay na bi laayn doonti bët lañ bët wala ñu toj ko bu dee benn bët la nañ bët bënn benn bëtu kooku ba mu xam ne boo ko keneen gisee balaa bënn bët bëtu jàmbur xam ne bu ma bënee bëtu jàmbur ñu bën sama bët ba ci nopp aussi tamit noonu noonu la ko toppalante ba cër yi jeex hmm. kon yàlla moo njëkk a wax gatsa gatsa ñun lu yàlla wax nag ñun pare wuñ pour dugg ci hmm. gatsa gatsa nag buñ koy wax ñun njëkkuñ ko fee wax président Macky Sall ma tëjee foofu hmm. toog na dem na euh, euh, meeting fii buntu assemblée national yaa ngi dégg di naqarlu nekk waay Ablaye Wade yor mer gàddoom 2012 2011 2011 boobu noonu ñun ñii ñoo taxawoon ci terrain bi di di métti lu néewal doole gi ko Ablaye Wade di néewal doole ñun sénégalais yi. Mm. ñoo ko doon xeexal ñun sénégalais yi ñoo ko defal lu ko benn mbokkam defalut. ñun sénégalais yi ñoo ko defal lu ko benn parti parti waa APR defalut ñun sénégalais yi ñoo ko defal lu ko benn doomu aadama defalut benn africain defalut. dooma laaj mooy lan ñun ñoo ko fekk ci difficulté yoo xam ne mm. kenn mënu ko cee génne ku dul ñun ñu koy buntu xatal di ko néewal doole ñu jël ko mm. danaa rëccu nag xam nga dana fekk jëf wees jëf nañ ba pare ñu ngi rëccu waaye ñu ngi jégalu Sénégalais yëpp ci loola bi loolu amee mhm. ñun ndaw ñooñu ñu jàpp ne ki ñu doon wër mi ngi nii parce que ay discours am yim ñu tegaloon dem na ba ne naka la xaw ma Mali xaw ma Guinée di jëndee fii euh, gasoil wala essence dinañu gën a yombale dem na ba ne courant bi nangam nangam dem na ba ne nangam dem na ba ne nangam dem na ba dugg ak ñun ci xissa Moussa ak Firawna ci Walfadjri mhm. ñu ne ah ñun de ki ñu doon wër mi ngi nii nekk ah ah booba du kii booba waa waajaa ngi nii mooy Ousmane. <laughs> jërëjëf léegi yooyu yëpp bi mu amee nag mooy ma tëj rek xam nga waa ji maanaam bu muy cuq ci euh, ngóor soosu. Hmm. mooy ki jiite réew mi maanaam danaa leeral tuuti ci moom. ci ci gis nañ ko sax mi mi mi mi def balaat moog euh, première dame. waaw xam nga man du ma ci du ma sori ci détails yu balaag loolu est-ce lu yàgg jamono ji réew mi kenn ñi mu fee génn de. ndax leen loolu yaakaar naa lu yàgg la. ah moom loolu du yàgg de li bëri ki démb la. déedéet vérifié <laughs> li ma wax kay xam naa ko vérifié leen. mais moom mooy njiitu réew mi. ah am na droit itam def balade comme tout le monde. ah rakk jabar rak magu soxna si de euh, génn bu yàgg dem moom. Ah. waaw keroog ba yëf yi tàkk la génn dem <laughs> ñoom ñoo la gën xam li xew ci rew mi. <laughs> mais médiation mënu cee am diggante Mame Mbaye Niang ak euh, Ousmane barki dem ñu ngi dégg Imam Dramé nee na am na ñu jóg pour médiation boobu am mais ñu ko jiite ñu àndul ak ñoom. waaw xam nga. ñu jeexalee foofu xam nga maanaam xeex bu amee koo koo dégg mu njëkk a yuuxu rek dañ ko jekku. tout à fait. moom dégg ma waaw yónnee na ci fii nee na ñu baaluwante àq nangam nangam def na nangam nangam yow xam nga yow maanaam yow problème bi nga am mooy yaw preuve boo jàppoon ci Ousmane Sonko rek àdduna bi gis ko yow naka la usman Sonko di oogee sa papa di ko baalu àq te yow amoo amoo amoo xel wax sa papa ne ko enregistré ko jox ma enregistrement bi wala wala mënoo ko wax jox ma appel bi ma xool numéro bi. ci enregistrement yi ngeen ñëw nii. exemple laay jox quoi. Mhm. wala mu jox ma ma def nangam wala jox ma dem nangam te yow enregistré nañ la enregistré nañ la ngay ngay ngay wax ci njiitu réew mi loo xam ne. bu la toppandoo nekk ci gouvernement ba tey yaa ngi dégg. bëgg a rallier pour daw dem ci Ousmane Sonko ak yeneen ak yeneen ñun sàkkuwuñ jàmm ci buñ ko sàkkuwut ñoom sàkku nañ jàmm it ci buñ ko bëggee ñoom. parce que jàmm ñaar koy dox benn nit du dox jàmm. tout jàmm ñaar koy dox. Mm-hmm. xam nga lu waral lii yëpp ñu ñu ubbi. bëgg na waaw Mame Mbaye Niang jéggale na Ousmane Sonko kër nangam nangam léegi bu ñu ubbiwaatee dossier Adji saar bi médiation doxaat foofu ñu ne Adji Sarr yow it Ousmane Sonko ah yow it de Mame Mbaye diw ak ñëwoon na jéggalu la nga jéggal mu jéggal la ñu bàyyi loolu mu jàll suñ sonoon yow it nga jéggal Adji Sarr wax ji jeex saxay ñun duñ ñun duñ ay duñ ay ay cuune de duñ ay cuune nag te Ousmane ay ay ay ngaaka waru ko d'accord hmm. jërëjëf kontaan nañu lool ci waxtaan bi nga tàggoo rek waaw li may tàggoo mooy di gën a féliciter patriotes yi hmm. di gën a féliciter sénégalais yi di masawu coono aussi tamit réew mi ñi ci ñàkk seen alal ñi ci ñàkk seen bakkan ñu ngi leen di ñaanal fañ jëm gënal leen fi ñu jógee buñ sañoon benn sénégalais du am góom bu ko xoos mhm. suñ bëgg-bëgg parce que suñ xol attanul sax di gis deretu sénégalais du tuur mhm. waxuma laa leneen euh, beneen bi ci desit mooy di gën a ñaax mhm. di gën a dellu si loo xelu takk deer yi xelu armée bi parce que ñun amuñu dut ñoom tëni bi bu ñu ko solee ñun ñoo tax. Mhm. ñun bu ñu rayee bañ jeex dootul ñu sol tëni kon ñun ñoo tax ñoom ñu sol tëni bi ñun ñoo war a tax aussi tamit buñ nangu ñuy rey kenn parce que guerre bu amee dañuy dem ngir guerre seen réew lañ wax. Mhm. kon buñ ñëw di guerre ak seen réew. ger ak sa réew nag bu demee ba réew àgg foofu armée war naa toog waxtaanaat ci biiram xool lu mën a indi te réew mi ak jàmm réew mi. Mhm. ndax jamono jii fa Sénégal jëm fa Sénégal jëm. jàmm naru fa xeeñ te ñaanuñ yàlla mu àgg foofu parce que lii may wax Ousmane njëkk na artu artu artuwaat ñun ñu artu artu artuwaat ñeneen kilifa yi artu artu artuwaat waaye ba tey ñi ñuy wax ak bëgguñoo dégg wala ñaanuñ yàlla ñoom dafa mel ne ñoom ay moo leen gënal jàmm buñ paree jël ay ji xëppuñu ko te ñun lu ñu am lu dul jàmm jàmm moo ñu ko gënal ñu ngi ñaanal suñu kilifa diine yi yàlla yàggal seen taxawaay mboolem koo xam ne jël nga kàddu gu ñaaw di ko jëmale ci ñoom jàppal ne bokkul ci ñun li tax bokkul ci ñun nag da koy jàppee ne yonent bi waxoon yonent bi nee na bépp julit bu teggi sartaay julit bokkoo ci man mm-hmm. donte yaa ngi wax allahu akbar ak yëpp jàpp na julit nga waaye yonent bi nee na bokkoo ci man Ousmane it nee na képp koo xam ne yaa ngi wax wax ju ñaaw di ko jëmale ci suñ kilifa diine yi bokkoo ci ñun du ko def responsabilité yu matir du ko def mm-hmm. ñi bëggal réew mi jàmm duñ ko def parce que Ousmane amul kenn ku ànd ak moom te tënkuwoo ci këru diine amul du man du imam Dramé du Cheikh Thioro Mbacke du sëñ Khadim Mbacke yaa ngi dégg du ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñun mënta lim ñun ma wax nii rek ci wàllu côté religieux la mais ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak ñoom ci biir loolu kenn ku ci nekk tënku nga ci këru diine te kenn ku ci nekk këru diine ga nga tënku daal la këru diine googa moo la gënal Ousmane kon ñun àndewuñu ak moom diine mais politique lañ àndeek moom mhm. politique boobu ñu àndeek moom nag dafay raxaale diine ndax diine mhm. leen gërëm di leen wax ni ngeen abonné ci sans limite parce que moom it amul limite. Ah, <laughs> voilà. lu <laughs> dul jàmm jàmm ko gën ñu koy gërëm bu baax moom kilifa gi ci euh, waxtaan bi nga xam ne seqoon nañ ko ak moom tolluwaay réew mi. ñeel itam li nga xam ne moom mooy la santé du président euh, Ousmane Sonko loolu itam waxtaan nañ ci waxtaan nañ ci itam li nga xam ne euh, moom moo jot a xew ci réew mi manifestation yi li jot a yàq nga xam ne itam génn nañ ci àdduna ñu ñaan rek yàlla suñu borom yàlla yërëm leen te xaaral leen àjjana jéggal leen seen i bàkkaar mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun di gërëm itam Bachir moom mi ne moo coordonné émission koy jaajëfal di nuyu itam bu baax euh, Mor mu Serigne Saliou borom Colobane ñu ngi koy nuyu bu baax mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen doon ànd